Aliou nuyu nañ la. waaw grand fay naa la. dañu ñëw fekk la sa dëkkuwaay rek nga nekk di open press naka ngay waajalee combat bu yow ak say mbokk. waaw avant tout ba ma sant yàlla julli ci Yonent bi sant samay ñaari waajur di santaat sama sëriñ Mame Malick Sy yàlla ko fi yàlla yàggal Mame Malick Sy moom sëriñ Mansour maa koy sant bu wér a wér di dellu santaat sama xarit sëriñ Cheikh Gala Thiaw Laye moom mooy borom combat bi ndax mooy borom yëmbal combat bi moom laa ko tuddee moo ta tey ñuy waajal kon man xam naa xam naa li ma war xam naa li ma war. ngay bëreeg ngay bëreeg ndaanaan naka ngay waajalee combat bi ak seen mbokk. mbay guy gi ndaanaan la ma bëreeg ñu ko gën a xotteeku biir Zemmer bëreeg Coins bëreeg waaye yow bëreeg ay ay benn benn le mars bi moo ma boole ak moom te yéen après ngeen di comprendre arène nationale ñu ñooy borom ñoo ko moom. ñoo ko moom bokk ñu ko kenn wàllu yaanu ñu ko kenn kon combat bi mooy sama premier grand combat foofu. danaa naa bëre daan bëre nag mais maa ngi doog am combat ndax combat bi xam naa waa yëmbal ni ñu ko respecté. léegi xam nga lu ñu lay laajam kañ la mbay di bëre avant tout balaa ñoo ñëw si combat bi carrément. waaw maa ngi war a bëre am na lu ma war a njëkk sax Bakar maa ngi jégalu parce que dama nekk Petersen di fa liggéeye samay mbokk lakkale waaw mu metti ma lool yëgu ma woon ñu lakkale lakk gu metti maa ngi leen di ma masawu coono di leen wax. liñ lakkale yàlla nañ am lu ëpp lool ci barke Seydina Mohamed métti na ma torop waaw di wax ne la le 31 mars laay bëre incha allah dimanche bi di ñëw bu delsee man ak Alioune Seye Signor bu waaloo waaw di ñaan ndam ci kawam incha allah. ndax combat bi dina am xeex. mënul ñàkk mënul ñàkk ndax sa waay ku ma bëgg a daan foog nga duma ko waaw. mënul ñàkk mënul ñàkk. kon nangu nga ne daanaka ngay bëre. ñi ma bëre ñoo gën a xotteeku ak kan kan ak kan la bëreel. bëri na la. ma Alioune Seye xam nga ko. waaw xam naa ko baax parce que mbër la mu ngi doon bëree ma koy seetaan boobu duggaguma ci làmb bu yàlla defee tey ba may bëree moom rek damay sant yàlla ko man demaguma fenn ci làmb bu yàlla defee ma toll fii tey bay bëree rek maa ngi sant yàlla bu wér a su ma la déggee nga ne bi muy bëree yaa ngi seetaan kon da ngaa jàpp ne moom mag la yow xale nga. waaw mag la ak xale. te bu bés baa it ku ñëw di nga xam ne mag ak xale yi bëree te man moom liñ ma xamee woon ci kàttanu yàlla gisuma leen lu ma ci changé yàlla na ma yàlla may wér rek ak tal ak fekk incha allah. ñaar yéen leen xool moom mooy mag wala ñun ñaar ku ñu xool dina xam ne moom mooy mag parce que boo ko xoolee kanamu mag la yor man xale bu ndaw laa 95 laa juddu gis nga dégg nga ma. nii ma toll nii dama entraînement tax ma toll ne ak gëm sama bopp. moom daf laa ëpp daf laa ëpp ay combat noonu la ma mën a ëppee ay combat. ñaata victoire. xoolal ñaata victoire la. yow yaa koy xool kay. ñaari défaite. kon victoire nga. waaw incha. Ah, yaa ne quatorze combat deux défaite koy wax. li ma koy wax daal mooy. li ma koy wax daal mooy. moom lu ne mu koy wax. naan ma sama tànk yeeg sama nangam nangam duma ma ci dugg ak du ci kii moom mu ngi xalaat tànk mi kon dama ci dugg du ma ci dugg ok waaw kon kon moom yeewi na boppam ay sama tànk yi booba boo ci duggee nangam nangam kon mu ngi xalaat man ma ñëw ci tànk yi <laughs> kon da mbay guy gi xam nga mbay guy gi man musuma rêvé ni dinaa bëre ak moom ndax maa moom tolloo ñu catégorie. yaa ma dégg mais combat bi lu tax mu taxaw Fallou Ndiaye xam na ko sama ménager Matar Ndiaye xam na ko yaa ma dégg suñu waa kii xam na lu tax combat bi taxaw kon jeex na maa ngi maa ak ñoom di liggéey yaa ma dégg pour ñëw yaa ma te combat boobu nekk combat bu may échec du ma ci échec mukk ma dégg ñëpp Serigne Touba a ngand gën a baax bay guy gi yaa ngi bëre koo xam ne la 31 mars da koo soxla lu ko yitte la lu ko ñor la li ma koy ñaan moom li muy wax loolu laa moom laa koy wax na dëggal boppam na dëggal boppam man bu dëgalee boppam rek làmb ji gaaw barke alxuraan bu bu dëgalee boppam làmb ji du mat minute yaa ma dégg pare naa lépp lépp pare naa ko mbay Diouf mi ma mujjee bëre moo gën a xotteeku fuuf. da nga koy fekkee wala da koy xaar. man xaar Mbaye Gouy naa ko xaar ci kawam laa jëm moom nee sama kaw la jëm làmb ji dégg lu ma ku xef doo gis jël moom moo moom moom moom jeexal na làmb ji man jeexal naa làmb ji moo ci des. dañoo gis ne que ren arène nationale bool bool yi fa bëreegu yëpp dañ leen a daan. yaa ngi dégg léegi nag yow yaa fay delluwaat ak grand combat loolu est-ce que yaa bàyyi xel. waaw loolu yëpp am na lu yàlla tub la sama xarit yi fa bëri sama doomu ndey maa leen di ñaanal beneen yoon yàlla sunu borom may leen ndam ndama ngi ci loxo yàlla man yoruma ndam keneen yorul ndam yàlla yor ndam da ngay sabab lu gëm sa bopp yàlla dimbali la. te ci kàttanu yàlla incha allahu rabi bu dee loolu rek maa ko fay dindi incha allahu rabi la 31. alin Seye Junior Lamine nee na alin say nee na mënoo xeex mënoo bëri. waaw mënumaa xeex mënumaa bëri te daan ay nit. lam ragal man laajal ñii di ma seetaan bu dee mas nanoo gis. danga leen di laaj ba xam mas wala yéen ñi yor kii mas ngeen a gis arbitre soufflé may dellu ginnaaw wala bu bëggee ñu sampu cinq minutes man ak moom rayante. barke alxuraanu karim laa lay wax bu taxawee maag moom duñ bëri ñaari minute kay laa lay wax. nee doo gis ku ku nga dul gis yow da ngay gëm. Ah, man damay gëm nan laay gëmee man bëri naa fi tóor fi mbër ba mu bëgg a dee jàpp ko daan ko mu naan damay gëm. Alioune Seye boo xoolee ñëw adversaire yi mu bëreel yëpp kan la ci tollool kan laa ci tollool. kenn laaj naa la ko. kenn kay ñi ma bëral ñëpp ka laa ci tolloon. kenn ñëpp la ëpp. yaa may dégg ñëpp Serigne Touba a ngand gën baax. bañ lay dëgg la bay guy gi. yaa ngi bëre koo xam ne le 31 mars da koo soxla lu ko yittee la lu ko ñor la. li ma koy ñaan moom li muy wax loolu laa moom laa wax na dëggal boppam. na dëggal boppam man bu dëggalee boppam rek làmb ji gaaw barke alxuraan bu bu dëggalee boppam làmb ji du mat minute. yaa may dégg bare naa lépp. lépp pare naa ko Mbaye Diouf mi ma mujjee bëree moo gën a xotteeku fuuf. combat bi bu gaawee wala mu yéex. lépp moom lay dépendre moom bu dawee. bu dawee kay dina yàgg. parce que man duma daw moom bu dawee. bu dawee moom mën naa yàgg. day. yaakaar day daw. daw moom dina am. ko def. parce que kooku barke arbitre ñi meet ko suuf la ñu simé ko mu taxaw sama kanam xalaatu ko li muy bëre xam naa ko. arbitre lan lay bëre lan lay bëre. dem gauche dem droite ñëw këf sa tànk yi te tànk yi ci kattanu yàlla buñ ko simé bu ko xoolee du jub xalaatu ko sa xool. man xaar mbay gu gi naa ko xaar ci koom laa jëm moom nee sama kaw la jëm lamb ji déglu ma la ku xef doo gis jël la moo ko moom moom jeexal na lamb ji man jeexal naa lamb ji rek moo ci des arbitre rek moo ci des bare naa lépp. ki ngay bëreel bu ñu xoolee ci wàllu làmb daf la mën nañ ni moo la ëpp expérience ci làmb est ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel ku gis ni nga waxee nii est ce que excès de confiance waru naru la dal yow. man du ma ñëw ci samay supporters mel ni jigéen gu ñu oddu góor yàlla laa est ce que dégg nga ma wax góor laa wax dama nii laa mel man damay sax mu ne ma da ngaa mer wala dara te meruma nii laay waxee man samay wax daa dëggal. Ah, est ce que de lii naturel la ci man. waaw kay yàllaa ko def ci man mais ay expérience ak yooyu yëpp arbitre bu soufflé moom ku ne li nga xam ngay def rek. yàlla moo yor ndam yoruma ndam mais ci kattanu yàlla gëm naa ne yàlla dina ma jox ndam li incha allah parce que liggéey naa ko wuti naa lu may may ndam. li may mujjee wax mbay guy gi mooy man nekkuma di man di wax man kenn xamee may wax mais nag mu ngi wax rek ngilaaw rasuli bu jugee ci làmb ji bu demee ci làmb ji bu mu def lu ko nit ñi di xeebee ndax wax na fu ne dégg nga ma su arbitre bi ne biir rek na dëggal boppam mu jeex na dëggal maanaam lu ma apporteel mooy daan naa ko rek vert rek vert rek la may apporteel vert rek la may apporteel yaa may dégg mais man daal li may li may mujjee wax mooy le premier ma le premier lan la avril ngeen seet si ma ci kàttanu suñu borom loolu laa leen di ñaan après bu boobaa ma wax leen ñan laa war a bëreel léegi ban message ngay lancé sa mbokk bool bool yi say supporter ak tamit promoteur bi di Fallou Ndiaye waaw maa ngi gërëm Fallou Ndiaye bu baax promoteur bi di ko ñaanal jàmm di ko wax ne lii neex na quoi mbëri bëri nañ fi mu jël ma ci man rek tëggal ma maa ngi sant yàlla di nuyu sama mbokk mbëri yi fi nekk tullu mbër du ma tudd kenn ñëpp di nuyu sama mag yi ñoom gas ak Malick Balla Gaye kii moo Balla Gaye an suba ngoon est-ce ma xanaa da ngay woote wallu noo du question woote wallu man Balla Gaye 2 kii moo tax ma xamante moom depuis xale sama xarit la ah, Aline Seydi mbërum géejawaay nga xamante loolu wóor géejawaay yëmbal la dëkk fan ci yëmbal fu mu dëkk ci yëmbal. yëmbal la dëkk. da ko wax dëkk bu baax. Assis Ndiaye. Assis Ndiaye borom Sador. si wu man nag mais kooku sama doomu nday la sama xarit daa jàpp ci combat bi est-ce que yaa may dégg leng si Sar leng si sama xarit la jàpp na ci combat bu baax waaw. waa Pater seen nag aw ma seen fay alkayda lakk gi nag mitti na ma torop maa ngi nuyu sama entraîneur village maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sunu waa dëkk waa Réfane boox di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di masaw waa koñ bi nag maa ngi leen di baalo ak ci dérangement bi waa koñ bi maa ngi leen di baalu ak ci dérangement bi